tatabaaha bikal usuru yunin tatabaaha tatabaaha yunin tatabaaha tatabaaha bikal usuru tatabaaha wa tasmu bika aliya u baadaha aliya tatabaaha li mu dégg moom rasulullahi tatabaaha li nu ko wax moom rasulullahi yunin tatabaaha li ko yàlla dégtal moom rasulullahi tatabaaha li ko yàlla wax moom rasulullahi tatabaaha tatabaha bikal usulu yunin tatabaha tatabaha pukurewu na yunin tatabaha tatabaha tiitaru na tatabaha bika al usuru jamono jamono ngay jaayu way na jamono ngay pukurewu jamono ngay tiitaru yunin tatabaha ngir demal Makka. ku supp yeneen tatabaay. keroog la xërëm ya toj. tatabaay. keroog la pare Kisra toj. tatabaay. keroog la dëgg tàmbalee feeñ. tatabaay. tatabaaxa puukuriwu na. man de way naa tatabaay. li ko yàlla digtal moom rasulillahi. tatabaay. li ko yàlla wax moom rasulillahi. tatabaay. Adama déggul loolu. yeneen tatabaaxaay. Ibrahima déggul loolu. ku sopp yeneen tatabaaxaay. yu jàll Muusee déggul loolu. tatabaaxaay. Souleymane diggu loolu. Zulkifli Ilyas Daniel digguñu loolu. li ko yàlla digtal moom rasulullahi. li ko yàlla dig moom rasulullahi. li ko yàlla wax moom rasulullahi. Souleymane diggu loolu. yun jàlla Daawuda diggu ko. tatabaha bika rasul tatabaha tatabaaxa tatabaaxa keroog bi mu gënee àddina tatabaaxa keroog la àddina leer tatabaaxa keroog la jamonoy tiitaru tatabaaxa keroog la ñu tëj bu du safara ya ñu ne la tatabaaxa keroog la ñu ubbi bu aljanna ya woy leen leen ma tatabaaxa keroog la ñu yokk leeraayu jant ba tatabaaxa keroog la ñu yokk leeraayu weer wa keroog la dëgg tàmbalee feeñ tatabaaxa toog dindi mu lay ndokkeel ba tey waadu kisra wa hum musabbihun ah, ka shamli ashaabil kisra ghayri mutayimi wa daaru xaamidul anfaasi min asafin alayhi wa nahru saa'i ayni min sabami وتعصى وتعن عن غدر بحيث نور الدوار بها بالغيث حين ضمي كعب بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجند تهتف والانوار ساطعه والحق يزهر من معنى ومن كلمه من دوينا تتباهى والسم فالاعلان بصائر لم تسمح وبارك الانسان لم تسمح tatabaaxa puukarewu na adduniya adduna zuhud puukarewu na wata zëngi na tataaroo bi mawlidika ci sa juddu gi yow rasulullah jërëjëf Abdou Lahad yal na yàlla fay la tatabaaxa bi kal usuuru wa sallam barakallah alaaj kontaan nañu bëggoon nañoo toogaat ba ci kanam nag waaw waaye euh, lu neex du doy nii rek lañu ñu euh, euh, bëggoon bégalee leen ci guddi korité ci télévision Futur Média fête bi c'est normal Euh, id la donc bu weeru koor jeexee ñu célébrer korité noonu lañ ko tuddee boo demee ci bambara yi ñu ngi naan sambe sambe sambe ñun nag déwénati bi tey nii rek la demee woon ñu organiser ko ak euh, suñu xarit yi suñu soppee yi nga xamee ni ku ne xam na seen diggante ak télévision Futur Média festival salaam na biir ak yeneen i programme yoo xamante ni ñoom euh, ñoo koy amal ci télévision Futur Média donc tey yoon la woon ñu proposer leen euh, déwénati bu yiiw Oustaz Pape Hann euh, tàggatoo bi defe naa dama lay jox rek nga faram fàcce ko ñu doog a tëjee nag ak boo xamee ni xaw ma naka la ñu ko tuddee mouvement d'ensemble waaw ñoom ñëpp pelloondoo rek mu doon boucle pour ñu jeexal guddi gi tey ci télévision Futur Média am naa mbégte jërëjëf maa ngi lay dokkeel mhm. maa ngi dokkeel sunu président Youssou Ndour mhm. ko ndokkeel moom itam ci yaatal gi mu yaatal télévision mhm. a mhm. euh, mhm. defe naa micro dégguñu ko noonu de nañu ko ko nañu ko yóot beneen waaw nañu ko yóot beneen ndax li ngay wax nii euh, attanul li nga def sànq moo diis ci micro bi nga takkoon ba. Euh, euh, il faut ñu indil la beneen micro. voilà euh, donc ko yóot nañu ko yóot beneen tata baax tata tata baax ajee fort. barakallah ah, ok macha allah. ma jël micro bi. Ah, ok waaw defe naa bii leer na di ndokkeel di ndokkeel sunu directeur général. Mhm. Birane Ndour ginnaaw bi ma ndokkalee président Youssou Ndour. Mhm. Alaaj Pape. ñaanal ko ndax yaatal gi mu yaatal l'islam bi fii ci télévision bi bari na ñoo xam ne dañ maa woo ne ma yaa tax ñu bëgg rasulullah sallallahu alayhi wa sallam am na ñoo dama daan bu nit bu daan tuub waxuma ko pour dara dama koy wax rek pour télévision ah. nga xam ni àdduna waaw xam nañ ci dara. waaw alaaj Pape sama sama sa fans club bi waa Canada yi ñoom Alice Newman. waaw euh, ñooñu yëpp ñun ñun ñu ngi woon ci fi jamono waaye da nga ñëw dugal foo xamante ni ñun fi mu ne mënatuñoo déglu leneen lu dul. Euh, lu dul oustaz Pape Hann. ndeysaan <laughs> kon président Youssou Ndour kenn amul fayam. macha allah nee na l'islam tir bu mu am ci télévision bi. xepp na ko bii je tuuti. ñu ngi koy ndokkeel ndokkeel. ñoom ñëpp dégg nañu waaye ndokkeel euh, Bouba Ndour Ndiaga mm. Ndour. Mm. Bouba ci suba ba tey. man Bouba ci suba ba tey ñu ngi jokkoo. wallaahi mook Ndiaga mm-hmm. pour pour bi. pour mu mën a jaabante rek. pour waykat yi. Euh, plateau yi kenn ku ci ne fa nga toog nga nekk à mhm. waaye mu taaru lool ngir rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon ñoom itam yal na yàlla fay leen amiin euh, alaaj Mamadou Mbaye Garmi kenn amul sa fay mhm. waaye alaaj Pape Cheikh Diallo mhm. euh, maa ngi kontaan ci yow jërëjëf mboolem ku baax bëgg na la yow ku la bëggul rek defaraat ndax mbaax gi nu xam ci yow léegi sama benn yaay dafa ma woo ca Mbuur ne ma nuyul ma alaaj Pape Cheikh Diallo <laughs> a ngi ndax yóbbante àq la ku ma dajal jot ma ne ma nuyul ma alaaj Pape Cheikh Diallo am na maire yoo xam ne nee nañu yow boo reetaanee rek ñu reetaan may seen xarit wallaahi may xaritu maire yi kër gu ma dugg nangu seen yaay sama nijaay Ousmane Ka waaw ah. moom le 2 juin la waroon nekk waaw waaye waa TFM gàmmu nañ ko gàmmu nañ ko pare man ka sama umpaañ leena Guèye ah, maa ngi koy nuyu Adja Aïda Ka yaay taalibe yi euh, Adja Fatou Ka sama yaay bopp jooju maa ngi koy nuyu ah. euh, Alaaji Maxtaar Aan Maguette Aan sama mag sama taaw bàyyi xaban Aan mm-hmm. ñaanal Mansour ak Moor yal na yàlla yërëm leen amiin awa Aan waa kër ga yëpp sama soxna yéen ci kër ga ah. sama yaay Adja Awa Cissé Ndey Ngom Ndey Jóob sama yaay faat Seck yal na yàlla yokk leen dëgëral yàllaaj pap am nañu mbégte euh, ñaanal la yàlla yàlla sàmmal la boppam ñaanal la yàlla aaral la boppam ñaanal waa Amérique ñaanal waa Europe soppee pap an yi aja loota Mbàkke jiite ko ca Europe ah. kenn amul faye moom itam Mbàkke bàll ah. sopp lool soxna loota ah. ubbi soppee pap an xam nga ko jur sëñ xaadim awa ba sëñ xaadim awa ba sëñ baaraa ko jur jur euh, sëñ Tuubaa jur ko sunu sëriñ la sëñ xarim aw ba mhm. sëriñ baara cheikhul xadim waaye soxna loota cofeel gi mu am ci ñun ngir mhm. rasulullah ajaa loota ubbi groupe bu magan ah, ay kilifa rek na ci ah, mu ni soppay sidina Muhammad soppay oustaz Pape kon kooku amul fayam kon sama sopp yi ne Europe mm. waaw su ma nee Europe rek. Ah. dëkk yëpp a ngi ci biir. Mboño Konaté mu ngi France moom daf la sopp ndax yonent bi wallaay wallaay alaaj Pape. bëgg loolu Cheikh. waaw su ma nee Amérique kenn génnul. wallaahi Daara ñaanal Serigne Sidi Ahmed Mouhamadul Habib. Ah. waaw ñaanal mm-hmm. waaw président Pape Diagne président maa ngi lay nuyu nga jotal ma nuyu bi waa ITFA yëpp rek. Mm-hmm. waaw waa Cincinnati. waa yi ma Aïcha. ba soppay Sidina Mohamed boobu rek nga xam ni ci korite gi euh, lu ne def na ko Grand Dakar mu dëkk. yi mu yónnee woon pour nañ fa mhm. euh, euh, ndimbalam pour nga jullee ko yor na ma vidéo yi naa ko wane ci télé bi ñaanal yal na yàlla barkeel ko yàlla yokk ko yokk teraangam ay xéewalam ci darajey rasul sallallahu mais laaj Pape Omar Diouf mm-hmm. euh, bu trésor sunu xarit bëgg nu ngi rasulullah xaaji Baara Seck yal na yàlla leen waaw euh, ma Cissé ah. nuyu bu baax a baax Mansour Diop mm. nabiyen yi daal nabiyen yi sono mu kalsom Ndiaye mu provocation soppa Sidina Mohamed boobule mm. euh, Adja Mominatu Kébé mm. moom moom daal nabiyen yi mais sama sama nabiyen bu ma bi mm-hmm. sama nabiyee bu mag bi maa ngi koy nuyu euh, su ma ko nuyu rek su ma génne euh, Maguette Ndiaye Maguette Ndiaye mu mu kël suum ah, maa ngi koy ah, nuyu ah. saala biigee mhm. Ndiaye moom mhm. la bu mag a mag bëgg ma ngir rasulullah gi ñoom ñëpp yal fay leen euh, su ma limee damay juum mais soppi naa leen ñaanal naa leen mhm. yal na yàlla defar sunu mbiri àddina defar sunu mbiri alaxira bu déwee na yàlla bu kenn manqué alaaji Pape am nañu mbégte bu baax a baax allahumma amin ñu ñu ci itam bi ñuy def émission bi léegi rek la ñu yëg génnuk euh, àddina euh, xalif euh, Serigne Omar Ahmed Dem Serigne Omar Ahmed Dem xalif famille El Hadj Amadou Dem bu Sokone la voilà moom léegi la yëkk génnuk àddinaam ci guddi gi mu ngi amoon quatre-vingt-quinze moo nekk ñaareelu xalifa famille El Hadj Amad Dem qui avait succédé xalif bu njëkk bi fa Thierno Mouhamad Dem Euh, moom génnoon na àddina 10 février waaye tey euh, la euh, dégg génnuk àddina génnuk àddinaam donc sookoon yëpp ñu ngi koy jooy Mao defe naa yoroon nga nataal bi ñuy massawu njaboot gi yëpp ak taalibe yi moom it mu bokkoon oustaz ci góor yàlla yu mag yi. Mhm. bokkoon ci góor yàlla yu mag yi maam Ahmed Dem. Mhm. maam Ahmed Dem ca Sokone. moo bind téere bu mag boobule. ak kaamilu alxuraan la la sarxa def ko vingt vingt ñaar fukk waaw waaw moom moom Ahmed maam Ahmed dem ci Sokone nga xam ne wilaayaam kenn du ko werante ci réew mi kon xalifaam bu génne àddina lislaam bee ñàkk ndax benn kàngam ci kàngamul islaam yi moo fi bàyyi ko nu koy jaal njabootam gépp alaaj Paap yal na yàlla yokk leeram yal na ko wuy juróom ba teer na ko mag ñu tedd ja teeru allahumma ci darajay soppeem ba sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon mbokk yi mu ngoog ci tàggatoo bi comme d'habitude rek mën naa dem ak euh, euh, euh, yu mujj yi mën ngeen a profité ci tàggatoo bi rek ku dugg ñu jox la cent mille cent mille cent mille ba keroog ñu tëj programme bi donc nataal baa ngoogu